Vous avez adopté la formule de la Banque africaine de développement, la BAD, qui définit les différentes classes sociales euh, selon le montant euh, de leurs revenus. Monsieur le ministre, vous connaissez ma position, on en avait parlé lors du débat d'orientation budgétaire. Cette formule ne, me, ne permet pas de lutter contre la pauvreté de manière holistique et multidimensionnelle. Je crois que l'État gagnerait à créer les conditions de création de richesses et d'opportunités à la place du système de transfert, ainsi que les conditions d'accès aux services sociaux de base. L'État gagnerait à créer des conditions de fourniture suffisante d'énergie et d'alimentation en eau potable. Monsieur le ministre, dafa rapport subvention yi nga defal investissement la su dee investissement nag fii wolof dañ naan la ji bu xaar suñu damay am yaakaar ni bu boobaa dinañ am stabilisation benn stabilité ci Senelec bu tax ñu parce que us bobu dafa dafa investissement bobu dafa wara jur lo xam sénégalais dotul nek ci position bi mu nek tension bi mu nek ba nécessité aussi bi stressé aujourd'hui les Sénégalais mala la laaj nak euh lolu fu muy fu muy muju pour nga rassurer pour nga rassurer population monsieur le ministre euh, comme li bi quand même il n'est pas si fou que ça parce que daf ni won légui nak damay a sama monsieur le ministre man député là, mais nak député bu meuse surveiller samay principes. là. parce que nous ngi ma titularisé ci fonction publique en 79 booba ba légui damay surveiller ndax warna fay impôt ak fay impôt actuellement député yi sont leen traîner dans la boue ci ay problème problèmes impôt depuis 14 jours nous ngi ensemble en commission Nous avons entamé la session plénière pour encore 14 jours mais nous tam loolu war nañu jëriñ dara say service ñu ngi ñuy defal ay renforcement de capacité mais nous nañ nag tey xam les revenus imposables est-ce que c'est yow ça sa sa sa fonction fonctionnaire yooyu nga fonds commun ndax duñ ko imposer nous ñu xamee les revenus imposables nous ne yàlla ñu nos indemnités yi nga xamné ci benn caisse ambulante la nek parce que député yi seen caisse bala ñoo génn assemblée mu jeex ay œuvre de bienfaisance ambulante lañu kon nag traîné nañu dans la boue doo fay impôt koo waxal sax xale bi gën a tuuti jàpp na ne député bi amul patriotisme amul citoyenneté du fay impôt liñ koy fay liñ koy jox ci suufu table ji liñ koy def li te yow say fonctionnaire am seen fonds commun te kenn du ko imposer wala dinañ ko imposer buñ ko dee imposer nga wax ñu yan revenu la ñuy imposer ak yan revenu lañ dul imposer parce que kat wax dëgg yàlla ñun mën nañoo tontu nag.